man musuma gis ku mën a sonalee boppam nii nii Aliou Cissé Aliou Cissé lii yàgg teg sa bopp billaay lii yàgg teg sa bopp dès le liste bi rek nga def sa problème maanaam mënoo defal benn liste nga ne doo ay litro boo tegee système bi Sénégalais bi du comprendre yow parce que instant yi Christian football un peu dina bon man par exemple Ismaël Sarr à gauche man c'est la première fois ma gis piston gauche autant pour moi piston droite gis naa ko mu jouer mais je l'ai jamais vu Habib Diarra c'est la première fois mu jouer loolu même si euh, propre ni muy footballé xam nga donc box box bu muy jouer permettre nag mu offensivement mu apporter en deuxième période dafa sonn Euh, Abdoulaye Seck pour man nice il a un grand match pour ñu ne ma non la moo tax clash Aliou Cissé Aliou Cissé mu dajeeg man pour la première fois dana ma yow ni ngi may kenn du classé non mais dans dans le respect quand même dans le respect donc ma fi nekk am na considération xam mënuma ko quoi xam do donc pour voilà amna yu xamante ne mënuma ko mais pour ni ma non sa gars yi la moo tax ko man pas d'accord si lu bëree bëri l'entrée de parti je suis pas d'accord le système en tant que tel bu fekkee dañoo amone ben style Jacobs style Bouna Sarr dinaa d' d'accord avec des pistons d'accord mais ismaël Sarr mu tok ci match bi ma gis amul gisuma rien lu mu apporter offensivement franchement lo gis gis Jackson a part raté bi mu raté na match mais mo togn bopam defal naa sax vidéo mais Aliou Cissé yaa togn a bop dès liste bi nga tooñ sa xam nga coow li muy bëri yëpp 4 3 3 4 4 2 football animation la comme Zinedine Zidane mu ngi ko waxee Lopy Mancini koo leen bëgg dañ naan animation bu ñu xasee ba classé nañ bien animé na créateur créateur na na jeu am na lien attaque entre le milieu am na 6 am maanaam football am na fu muy toll c' est c' est lu simple mais boo boo demee sa liste amul andi wala trop saa lii rek moo xam li mo di descend descend di gardela gardela wu xam nga yooyu yëpp sonal sa bopp la tegal lu simple wowal ay deux très bon latéral Congo gi nga dóor ko Sénégal Sénégal ay compte kontaan match bi jeex mais Aliou Cissé lu la dal yaa ko teg sa bopp lu la dal man système bi ba ñu ma ko de man bokk naa si ñi xamante ne d'accord naa mais d'une façon avec des profils yu xamante ne ñoo ko mën a jouer parce que man mën naa la indi ay latéral gauche yu dul jeex fii Sénégal Europe feneen ak feneen yu dul jeex Sénégalais xam nañ leen ñu am talent yu xam ne dañu doon jouer match yi mais Aliou Cissé dëgg neexul est-ce que sa heure jotul na nga bàyyi keneen mu ñëw li ñu gis ni dalul xel de te duñu bëgg dem coupe du monde 2026